macha allah alhamdulilah santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di leen bégee di leen kontaane di def di waxati jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu wér war na jaam ndax kat yàlla moom moom ay yëfam di may ko ko neex ñi dem gënuñu leen waaye bu ñu yewoo ba taxawaat fii dañ koo war a sant gu wér a wér a wér kun fa yakun sunu borom yàlla yàlla defal ñëpp jàmm tuur ko nag ci askanu Sénégal gi nga xamante ni ñëpp jàmm la ñuy wër koo gis ma ngay kaf di ree jàmm la ñuy wër suba ba ngoon di leen bëggee di leen kontaane di leen wax ni ñëwati ngeen nag ci seen émission bi nga xamante ni mooy wàññi stress yi seen divertissement la boo xamante ni na neex la tudd na neex laa lay woowee nii ma sama valise di ànd ak moom di fëlaale sama waa jaa noonu di ma jël-jël yoo xamante ni amul fenn ma namm ko loolu ñu war a doxal dem ci fu ñu ak ci lu ñu neex ñu war a nag tëll tëlli def suñuy bagage yu amul fenn léegi nag fi ma jëm ba jëm fa mooy dama ne damay jox jeeg bi mu nuyu waaye maa ngi gërëm papa alaaji Ndiaye di kontaan sama yaay yaay Marème di wax nag alaaji Mama Ndiaye ca Belgique yow loo dund doyul waaye ajaratu Mama Ndiaye sàmm nag yow nag sama yaay ju baax jooju yow yaa waral ñu baax jëm li ñuy def bëgg li ñuy def nangoo liggéey am jom lool falaay laay jaaree jox ki nga xamante ni la mu sàjj ëpp na la mu def ëpp na attanu ma sañ seem attanu ma ceebam attanuma attaayaam loolay daaneel gars yi temps yi slogan bi sama sponsor leader maa ngi nii ba mu bëri doole doxalal daay tubarkàlla macha allah maa ngi leen nuyu di la bëggee di la ziar bu baax a baax a baax kenn du yow sama artiste planétaire bi kall ki xam ne tubarkàlla monde entier la deesu ko présenté ci réew ëpp na kenn du yow naaru yaay ñaay sa waaw mais wuy ma doxantu doxantu waale yii tey damay sàjj doxantu waxaale fa laale pesete naa leen de pesete ñii nga. tarate leen pesete naa leen mayuma leen dara tubarkalla sama heure jot ma sàjj daat koy falaale daat koy jëmbang daal di nuyu àdduna biir réew bitim réew comme d'habitude et eh, lan waa jigéen ñi Papa Ndiaye Thio lu mu namu ci réew mi. lu lay fay man man daal attanuma lii. waaw lan moo mooy fundang ak fi réew mi toll suñu heure jot. fii ci la 2STV eh. ñu lay béggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax di ci jiital suñu papa Alaaji Ndiaye tubarkalla macha allah suñu yaay Marème Ndiaye mi nga xam ne mooy yaay njaboot njaboote ñu tubarkalla macha allah ak 2STV gi yëpp fi mu toll nii dëkk baa ngi yëngu di vuruju di varaju <laughs> man damay bëgg di bëgg di bëgg laa di ñaan la caméraman ici di ñaan na neex lay doon na neex lay doon. ba mu bëri doole. ah nga ne gars yi ñu ngi lan. ma ne ko ñamalate nga leen de. ah ne ko yàgg ngaa solo ñu ne la noo njaay wuy ma. kansal. gedd. na wuy ma daam lu may kii daat koy kancalaare fa tàllal. <laughs> xale yi ma koy ma jég li muy wax mooy lan mooy lan. kancalaare. <laughs> mais gars yi bu soloo ñëw ñun daal di koy lan. dañuy gedd naan la wuy ma daam lu ma fàtte léegi sa dooma jiitu yàgg nga koo dégg tubaarkàlla sama oh. waa dégg sa yëf la. Hmm? ñamati ngeen de. naaru yemeen njaayaan. non ñamati ngeen. kaay fii ñu la placé a ñamati ngeen dëkk bi yëngu na suñu heure moo jot nii lañ toll ci réew mi tubarkalla. laaw la cat su baax na ma lan. waaw fatti lan. jaddi lan. eh saytaane wopp dee toxu. dégg laf cat. ñu daal di émission naan mandi. rey génnum réew rey génnum réew. yi ñuy wax dañuy catu. Hmm. yàlla nu yàlla musal ci yéen yàlla nu yàlla musal ci yéen waaye yi nu bëgg dañu bëggee. nay neex ba Tambacounda tey nag xoolal. Mm-hmm. tey fu yàgg laa ni yóbbu. waaw fu yàgg a yàgg. na ndax tey mercredi la. tey fu yàgg laa ni yóbbu jeeg. non jaadu na yóbbu yóbbu yóbbu leen. xam nga sa saf yaa ji du ko weccam ñool mu tooy. maa la ko wax ba eh, eh, may ma kili boobu ma la laajoon. tey rek ñu daan koy falaale daan koy sàjj. let's go dëkk bi yëngu na. may ma kili boobu yow ma ñëw. Eh. macha allah papa Ndiaye coppeet yëngalati na. dëkk bi. defatina. nam daan def. defatina. comme d'habitude. Seydi Awa Ndiaye comme da naan lu kenn du moom de yëngalati na réew mi ba mu yëngoot li mi ngi mel ni tay chéri aw Ndiaye kenn du moom ma wax la loo yëgul waaw xam nga léegi lu neex la def ndax suñ valise lañ yor te bu ñu neexee ñu jëlee sa kër ba ci biir la wax yor la wax lii damay seeti doon jéego waaw doon jéego la ñuy seeti nii tubaab ma nga ci doon jéego nga ci di def lu ko neex kon dañ koy jël nii dama koy wax eh doon e fils foo nekk don biju biju jéego da jéego xoolal xool liñ ma def ay trois papa Ndiaye ay waay laay laay li laa ko mënul ma lu yàq yow a mustaam ay six na neex na neex ah jeeg deux sa toll noonu ci sa robb ci lu baax waa ji jël la wagee defal ma ko nu la neex tubaarkàlla jëlal li e eh, yesaay gu cocce asalaamaaleykum les gars gars yi maa leen di bëggee di leen nuyu bu baax a baax di leen wax ni nouvel an bi nii la ñu def innovation bi la ñu innové di gërëm suñu PDG di gërëm personnel bi surtout les caméramans ak ñi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci 2STV bi mënuma lim damay juum alo ma ngi nii génn suma kër di dem defi émission after work léegi lii moo lii mooy bu bees bi xew dañu lay jël si sa biir kër bu la neexee sa buntu kër xaar la di la topp la topp di la topp ba 2STV bi ñu préparé émission bi gu caace avec la Don Diego avec la 2STV euh, after work 18h 19h tous les mercredis waaw <laughs> ah, très bien moom frère gu caace merci salaamaaleykum les chauffeurs yéen liggéey rek <laughs> très bien chauffeurs yi laa doon nuyu ñu nekk vraiment sama gars yi nga xamante ni ñoom ñu ngi may bëggee bu baax a baax a baax a baax di leen wax ni vraiment liggéey bi commencé nañ ko nii nii daal la waa 2STV def dañ lay jël si ba sa topp la di la topp di la topp di la topp ba nga ni dagaj biir 2STV voilà loolu mooy lu bees li génn vraiment <laughs> kontaan naa ci trop di ci félicité euh, suñu PDG. vraiment liggéey bu rafet bii mu ñeme ko di ko def ah El Ndiaye di koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu madame Ndiaye di leen wax bonne et heureuse année une année de prospérité parce que vraiment ñu ngi innové ñu ngi innové bu baax yasaay waaw gars yi maa ngi nii ci yoon bi bu ma neexee commencé naa émission bi bu yàgg grand na nga def si vous plaît mën naa la gis une minute don tego kaay rek gu caacee kay waay eh, kay waay <laughs> voilà mi ngi noonu vraiment ñu doon innové pour euh, laaj ko ci euh, taxawaayam ci nouvelle an bi ñuy innové vraiment di def émission bu extraordinaire loolu moom la ñuy moom la ñuy innové alors salaamaaleykum sama gaay bu leen daw waaye da ngeen def bonne heureuse année non doon jégalu am naa droit souhaiter leen bonne heureuse année bëggul waaw <laughs> voilà gu cooc milliardaire voilà kon je suis <laughs> très bien voilà mu nekk affaire bu extraordinaire ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax vraiment initiative bi baax na rafet na papi taxawal tak voilà balaa ngay mbëkk gis sa ginnaaw wala <laughs> maa ngi nii gis nga di xaar euh, bus bi jàll après ma jàll dem continuer sama émission wala xaar bi yàgg na wala yàggul asalaamaaleykum kan laa jël waay bonjour monsieur Don Diego milliardaire ça va bien ça va bien dama gis taxawaay bi day yàgg lool lool lool lool wala du yàgg lool lool lool avant tout ma bàyyi la nga nuyoo ak sa gars yi. maa ngi tudd Bakary Bakary maa ngi dëkk Liberté 6 xaar bi day yàgg dañuy taxaw fii ay de temps ay deux heures de temps di xaar kaar. loolu c'est normal loolu nag man doon jéego maa koy dindi parce que lii ma def nii dañ ma yebal ministre bi moo ma yebal pour ma laajte. donc yow nga ni xaar bi dina mat une de temps. des fois mu une heure de temps des fois ñu def fi 45 minutes yoo xam ne kaar yi duñu daw. te pourtant 300 400 kaar ñooy génn le matin. ñooy génn le matin waaw. le soir 600 wala ba 700. parce que ngeen di wàcc leen di jël. ñu leen di jël si waaw. pourquoi retardement boobu yow kan nga parce que ñoom ñu kaar yi dañuy ñëw gaari fi ñu taxaw ñu jox li ñu la wax. te temps yi dégg naa président mi ngi sa kaw. boo moytuwul nag dina yéeg sa kaw parce que moment yi président dafa mer ñii waratuñu xaar trente minutes en Europe c'est pas comme ça da ngeen bëgg innover da ngeen bu rey ci waa Europe président ngi set setal léegi arrêt yi waratuñu am 30 minutes te bis bi ñëwul voilà looy wax gars yi. nañ nañ nañ góorgóorlu. gars yi dañuy génn di leen xaar dañuy teel a génn di di di di leen xaar ñoom da ngay xaar une heure de temps des fois bëgg a xaddi sax. Voilà, c'est pas normal, tu passager. Merci mon grand. Et une très bonne continuation. Et bonne année. Gotiache. <laughs> voilà. Papi di nga mbëkk ñu sa ginnaaw ndax filmé milliardaire rek. <laughs> non non non moom laa doon expliquer waxal parce que dañ ma yebal. non non non ministre moo ma yebal. asalaamaaleykum. père lan nga wax ci bis bi gaaw na wala gaawul. gaaw na sax quand même. gaaw na il faut le dire. mais par contre départ bi fii moom métti. d'accord di ngeen jël combien de temps. parfois dinañ def 30. da taxaw ba sa tànk yi nagam wala. ah maman sa tànk yi du nagam. ay ay <laughs> voilà tu le ministre dégg nga voilà yóbbante baa ngi noonu DG dem dëkk nag yow Moussa Diop yow la ñuy waxal ah nga ne lan yow eh, DG bi seen nijaay la <laughs> yes ay gu cooce la paciko maa ngi nii nag di dem dugg ci 2 defi sama émission bi parce que tey moom baax na ci micro trottoir bi laaj askan wi yasaay Papa Ndiaye ana Pachiko allez mon frère vas-y jëlal maa ngi si yoon bi <laughs> Don Diego milliardaire biju biju man dama koo bëgg mhm. man dama koo bëgg man dama koo bëgg ndax daf may daaneel man dama bëgg Don Diego man damaa bëgg Don Diego Don Diego mi ngi noonu lii moo lay wax ni 2STV yi nu ko neex ak ko mën da koy defee ni ko neex ki ko mën ak ki koy jéem bu ñu neexee sax keneen ku ne feneen ñu teg teg la sa biir kër di la wane fii di la wane fii nga nekk direct doon déggoo li nga def am na solo jeeg loo may loo may may tey ci 2S li mu indiwaat non li ma lay may ci 2 li mu indiwaat mooy saa su ne 2 day innové ba mu bëri doole tubarkàlla ku ne xam ne suñuy valise lañ te saa su ne ay surprise lañ leen ak ci année bu bees bi année bu bees xam nga ne yu bees 2020 ak yu bees émission yu ne tubarkàlla réew mee yëngu tey na xool ma li daanaka dëkk bi yëngu na. ah dëkk bi yëngu na na. dëkk bi furuju na faraju na naan ko ca tar mbaaj woo jongo ma tubarkalla. <laughs> waaw oui ma ku la def nii. Eh, limat création. lii la def ci réew mi limat création kooku bandi la. maa la wax lii. kooku bandi la. te nag Ndiaye naa la xamal leen de ak foo mënti jëm man yaa matul une heure de la ma woo ma ñëw sàjj nii dem lépp pare na prêt à porter yi. après buy jeexal rek may joxe numéro. maa la wax lii buy jeexal ma daal di sàjj numéro ay ay prêt à yu ne muut. incha allah léegi fi ma jëm a yéen mooy gis ngeen li doon jéego wane gars yi sonn nañ mhm. jigéen ñi nañ jàppale góor ñi góor ñi jàppale jigéen ñi. Mhm. ndax tey ci fajar boo yeewoo gis sunu yaay yi gàddu seen i paan wala gàddu seen i siwo bëgguñu gàcce bëgguñu defet mhm. lu baax lañ bëgg. moo tax ñuy def noonu na na leen suñu papa yi di jàppale. waaye tamit yaay yi nañ jàppale paa bi surtout ñun jeunes yi nga xamante ni dañoo bëggante ànd di sëy te yàlla rek tax. nañ leen comprendre di muñalante. te kenn bañ a teg sa morom lu mu àttanul. comme appartement nga bàyyi kook appartement ku ne seen biir kër nga bàyyi kook seen biir kër ndax du matériel mooy def dund gu neex nit am na lu ne te amul dund gu neex. nit te dundam neexul dund bu neex yow yaa koy neexal am diine am lislaam doyloo li nga yor mhm. li ma sama sëñ bu tedd bi doon wax rek sëñ Fallou Dieng daan ne nit moom boo doyloo rek mën nga fee dund ba jóge fi te doo am la naqari sa dund maa ngi koy béggee moom sëñ Fallou Dieng bu baax moomu mhm. di gërëm tamit nag sëñ Cissé mu sëriñ Babacar ah, ndax ñooñu yàlla da leen a baaxal mhm. di gërëm Tiwaawoon gépp di gërëm waa Touba gépp Daaru Xuddoos soxna moomi mi nga xamante ni moo bëgg ajarat Njaay sàmm di ko bëggee waaye tey jeeg boo gisee gars yi fi ñu taxaw di xaar biis yi waaw moo lay wan ne affaire yi metti na mhm. waaye nañ muñ mhm. nañu muñ ndax sunu nguur yi ñu ngi góorgóorlu ci tali mhm. la loolu loo ma ci wax dëgg la mu jël léegi dégg nga ki mujjee wax nee na dafa wax te yàlla gaaw na mais fi ñu taxaw mooy metti te lii daanaka rafet na pour ñu wane ko pour ñu xam ko pour bis yi gën a bari sax bu gënee bari doo bu coono bi daal di jeex rang bi ak xaar bi. parce que xam nga kii tey waaw xaar bi noonu bu fekk fa dara wala mu toog am lu koy xaar loo xamante ne heure net la war a egsi bu bis bi tardé tardel na ko. moo tax yéen il faut ngeen bàyyi foo ne. waaw foo ne foo toll. foo foo nekk nii waaw mais foo foo dangaa tardé dangaa kii affaire yi dafa metti waaw moo tax gis nga 2S lim def bu ko defee nag ñi ci kër yi dinañ comprendre xam ne. bis bu ñëwee ba merci beaucoup ak coono bi muy daj. bu il faut nga wax sa borom xale jigéen ñi nag. ñuy comprendre gars yi. li ma leen wax mooy xam rek moo leen soral. xoolal tey 2S da leen woon loo xamante ne pour xale yu jigéen ñi nekk ci kër yi jeeg ji nag mhm. jeeg ji laa nga ne ñi ngi seen kër di xaar seen borom kër di ko ci tarbaj wala di ko ci tarbaj dëgg da leen a woon tey loo xamante ne nii tubarkàlla pour ñoo xam ne tali bi moo leen fi yàggal ak circulation beeg ni mu demee noonu yaa ngi dégg ba pare tamit bu buñ jëlatee bis yi xale yu góor yi nañuy jug may maire yi ak jigéen ñu ñu toog ndeysaan billaay wallaay da nga gis maire bu nekk ci bis jàppandu ba sonn xale bu ndaw toog takk ay kaskam ne pat loolu lañ mhm. lay fay maa la ko wax est-ce ma bu wér nit li nga leble loolu lañ lay fay aka leer du dëgg dëgg bu wér ku yabu rek yaru yaatu te yaatale taaru tabe tabe te tey tey tey rafetal mel ni sama jeeg mhm. mais li nga def nii ëpp na limaat création tey na dama koy may bébé Eva borom waagu ñaay déedéet eh. may ko soxu soxu ak Sofia Thiam soxu ak Sofia Thiam waaw ba tey d'accord naa su ma neexee sama may ko faatu Mbaye yaayu bébé Fa mu jimbang kooku jigéenu Sebo Ndiaye mu jimbang daal di fëlaale Sadji tubaarkàlla eh réew mi nag jéeg bi lañ bëgg daal li la yàlla dogal foofu laa jaaree bi sax jéeg bi la bëgg tubaarkàlla fi ma génn noonu neex na ma waaw waaye li ma wax rek yéen jigéen yi yéen jàpp ci ñu jàppalante. waaw bëggalante waaye li ci am solo ba am solo mooy. Mhm. li may wax dafa méngoo ki ma leen waaj a may. dëgg la ndax li mu waay téere la. Mhm. boo xëyee kontaanoo. Mhm. déglu ko boo xëyee xamoo nooy def déglu ko. dina la ñaax dina la xelal dina la may kàttan. ak leer waaye sunu borom lu mu def moo gën. ndongoloo yàlla na xippee àjjana. jeeg ji jàppale leen seen jëkkër yi ma may la jéegu puso di ko may kan. ah kooku nag mooy sama amoore mio ah, mère Yacine mini bi nga xamante ni yaa ma gën a xam yaa ngi ree mère yow fu ma la kepp doo too ko defat Ousmane day ci boole plateau bi muy neex clip bi ñi ñaa ngi koy seetaan ci YouTube bi boo ci boole fii rek day neex muy ambiance di dem wage di ko teg fee muy yëngatu loolu laa la bëggal ndax doon jéego ñëw na tey nag am na artiste boo xamante ni ah. dafa jege muy Baye bàyyi nag dafa bokk ci gaa yi gaa yi daleen ci boole gars yi ndax ñun ñëpp benn lañ dëgg la bu leen xeeb kenn na leen di jàppalante ndax suuf bu sutantee dañ ko jal tele yi ñëpp ko moom tey ku yor pousse-pousse sax daa war a ñëw ci tele yi bu mënee li muy mën ah. nekkul rek ku ne juddu taxaw rek lañu war a jàppale ñëpp war a jàppalante kenn gënul kenn am na ñu bëri ñu ma war a indi fii ñoo xamante ni boolewul leen ci nit ñi waaye ñoom yàlla boole na leen ci nit ñi ndax ay nit leen ñu ñun gënuñu leen ci ndey gënuñu leen ci bàyyi gënuñu leen ci dara dina ñëw ci kanam tuuti waaye ñu delluwaat suñu tem doon jéego tey li ma defal neex na ma amal na ma solo ndax milliardaire day génn yëngal dëkk bi. Ah. def lu ko neex def lu ko saf sàjj ndax tey 2STV dafa am ay valisam yow doon jéego bu la neexoon ma jëlee la bët gore da nga fay def lu la saf wax fa lu la saf ndax PDG moom mel noonu. bi gaa yi namee télé noir balaa ak <laughs> en moom moo ko fi indi. ndax tel noir blanc dañ seetaan papa Alaaji Njaay doon jàmbaar di góorgóorlu ba indil ñu li tey la ko tey nag mu indil leen Sénégal lu bees a bees 2020 fu waay woote rek commercial ñu fekk la faak suñu valise defaral la sa direct ba mu nooy ba muy moom est-ce que xam nga suba waaw damay jàkkaarloog di Diop dëgg la pardon damay jàkkaarloog Sidi Diop ca Géejawaay dëgg la incha allah ñu préparé suñu grand théâtre waaw waaw le 10 xam nga loolu du yomb ndax xale bi dafa yëngal jamono mm-hmm. man li muy def xam ko saf waa Sénégal di ci nuyu Baye Diass ak baay Zal mm-hmm. di ko wax ne incha allah du romb ndax ma tàjjoo suma teel kum ne sa ginnaaw ak Omaro Papa Ndiaye Thiou war a ragal dara doon na mu dara rak dina neex dina yëngu ci kàttanu yàlla Sénégal pare leen Géejawaay sàjji leen Médina Cambérène Pikine Parcelles yëf yi ñun ñëpp ko bokk ndax si di ñëpp lay wayal dama ne pare leen ndax du yomb waaye jeeg ni ko ndongoloo waxee rek ku yebu jàppale sa alaaji ndax jamono daa métti. maa la wax li waaye métti bi fi nekk nag ni ko papa Ndiaga Mbaye rek métti bi fi ne yàgg na waaye fekkee ko teg ab jullit. la métti bi fi ne yàgg na waaye fekkee ko ko teg. ndax ku fi newul fekke woo. doo yëg métti. looloo am waaw te ku ko oyofal sax mu oyof. waaw waaw na jeeg yi jàppale gaañ. dañuy jàppalante gaañ te fekkee bu nga teg ndox. te tubaarkàlla papa Ndiaye fekkee waral jàmbar ñi ko fekkee wut yënguwuñu déggal lii barki Serigne Touba kon tubarkàlla bu la yàlla maye nga wér di fekkee del yaatal tey yaatale tubarkàlla macha allah wax du am dara du am lépp daal di yaatu àdduna amul solo mu daal di tar mu daal di ko cay tarmbat rek tubarkàlla ba pare nag di la xamal ne la suba yaag Sidi da ngeen di jàkkaarloo incha allah ñu waaj jëm le 10 ndax 2STV moo toll noonu dama la ci boole ah, maa ngi ci biir maa ngi ci biir maa micro central bi di wër valise bi topp ma direeku daal di jëmbeelu jëmbang ak lu ma saf maa la wax lii mënul ñàkk kon suba dama ko ci dama ko ci tarmbaaj <laughs> suba amul kàncalaare tàmbaj rek. non kàncalaare nag dinaa ko commencé. Sadia gis guma la yaag Saneex. Sadia waaw waaw dégg guma leen. Eh, mais semaine bi yëpp moo ko moom. na ma naan seen numéro de. mais moom moom semaine bi yëpp da mu woo la. Samba kenn moom dama ma kàncalaare ko. déedéet borom borom kaw lak ndangaan tubarkalla bul def loolu. ah Amady Badiane nag ko. non non la bañal loolu waaye tey am nañ invité de non bu rëy dina ñëw après Mbaye Dieye Faye bi dama koy dalal moom mooy tëj émission bi tey bàyyi tey da koy tëj ba mu neex ndax indi na soobu doy waar te gars yi il faut ñu déglu ko mhm. ndax yor na orchestre am am na yeneen yu bari yu mu ci pare léegi nag li ñu doon waxtaane mooy ñu jàpp ci combat bi mënta ñàkk ministre Matar Ba di ko bégee ndax loolu mënta ñàkk ah maam booy jaaw mu baax mi nga xamante ni chaque jour mi ngi def lu baax ah mhm. waaye Diouf Sarr ah, ministre da la santé mi nga xamante ni kenn du moom kenn du moom ah dëgg la Cheikh Yirim Seck sama grand waaw ah, waaw yow dundal rek sa dund am na njëriñ loo dund mu neex ñu ngi lay bëggee di la kontaane di la ñaanal jàmm waaye nag di ko ñaanal ma ko jëfay ak Baba Ndiaye mhm. ah jeeg loo may mayaat ci loolu ñu jàpp sa combat tey nga ñu jàpp sama combat tey damay nuyu ajaratu mbeen kooko yaayu musli la xale boobu nga xamante ne nii daa sàjji di def lu baax di ko dagg di ko ñëw tubaarkàlla fi te fi ne nii Papa Ndiaye vendredi dama lay yóbbaale ñu dem ci ouverture bi mhm. day ubbi place ba tubaarkàlla invité na réew mi yëpp Ndeye Ndiaye Lamsal la yor micro central ba moo koy sàjji sama yaay jooj boo nee Matar ba rek sama xel day dem ci Ndeye Ndiaye Lamsal kenn moom tubaarkàlla suba moom laa ubbee climat bu bees bi waaw moom laa ubbee fii waay daal di nuyu sama yaay ajaratu Ndeye Soxna Mbeen Ndeye Soxna Ndeye Ndeye Mati madame Sarr tubaarkàlla kenn du moom maa ngi bu baax yaay booy léegi fi ma jëm nag damay seeti sunu papa sunu xarit sañ gi Birame Gueye kewe yaay Awa Diagne may ma ko ma fëlaale tëlaale sànnee ko ci ba muy moom waaye nag di ko bëggalee ajaa Yacine mi ci mini bi nga xamante ni ma la keppee ci ruq di nga xam ne lépp dëgg la yow may ma fay ma may ko ko fis waaw waaw mënta ñàkk mënta ñàkk ñu wax leen ko ngeen dégg ko ndax xam nga ni tay suñu yaram dafa tàng mhm. ndax euh, bàyyi laa annoncé woon waaye bàyyi ngi nii di doog a yegg si ma nga nee ñi màkk yee bàyyi borom tiwaa woon waykat bu mag ah. maa ngi ñëw ci bàyyi léegi bàyyi préparé wul mais nag kër gi dafa yëngu ndax ñi ngi waaj a ndaanaan ndaanaan nag balaa moo ñëw damay bàyyi jéeg bi dugalal ma ko la may wax ci Ndeye Gueye lu may wax ci Ndeye Gueye mooy subarkàll surprise jox en direct jël yëg nga li yow ah dañ koy ndey dañ koy jëli ne ak suñuy valise la dugal ko biir 2S ak lu ñu saf kon ñu may leen ndéygay nii muy ñëw nii en live nii live en direct naa leen démb sax mardi waaw waaye tey direction bee ko woolu ma ngay dem ma ngay dem te direction la jëm maa la wax li tout droit ko bés mu ñëw ay kenn du 2S kii fekk ay valise am <laughs> danoo nar lu bari ak lu ñu saf te pareeguñu nag dañuy dal seen kaw saa su ne ay surprise la ab sunu papa laaj daal nee na doomu sénégalais yi. Mhm. ku ci bëgg a liggéey. waaw ñu téye la nga liggéey. pare na ku ci bëgg la liggéey nag. ñu kàncalaare la ñu kàncalaare la nga buruju. <laughs> nga buruju faraju. <laughs> ndége ana nga. moo jàppale xale yi. comme nama la daan nuyoo Ndiaye jaata di nuyu sama sama aminta moomu noonu sama ndaanaan boobu jéeg bi ci rond point bi ah papa Ndiaye yow da baax danga ngaa ñàkk ki ñaan gis nga de démb démb rek nga ma woo. ma ñëw jaar ci sa émission tey madame Ndiaye jox ma rendez-vous ma ñëw rek gars yi dar maak caméra yi xam nga waa 2STV ñoom dañoo xariñ Ndiaye maa ngi ci biir fekk si naa leen rejoindre naa leen madame Ndiaye rendez-vous la ma jox rek ma ñëw gars yi jox ma dajeek man jox ma caméra yi Papa Ndiaye li may wax waa Sénégal 2STV waaw maa ngi ci biir fekk si naa leen te ñëw naa ci yéen Ndiaye sponsor yi daw si leen ngeen ñëw wuyu si ma sponsor yi may waxal nag xam nañ seen bopp. te dinañ njaay dinañ man ak yow ak géej gu ci rompoint bi dinañ démarcher sponsor yëpp ñu ñoo accompagner ñu suñu suñu suñu émission yi ñuy def ci na neex waaw muy nuy ñëpp nag di bëggal ñëpp ah di jaajëfe ñëpp di leen wax egsi naa ci biir 2STV Bidio alias Soxor Kele jéegu 4 continant bi jéegu 190 000 giga bi eh jéeg bi yegsi na de jéeg bi ci rompoint bi sa doomu nday yegsi na de sa xarit yegsi na Papa Ndiaye ça va chauffer. xool ma ni may doxee di jàpp ndam di dugg biir 2STV yi ça chauffer ah rendez émission yu bees tàq avec la 2STV yi la télé autrement maa ko wax ba leneen ñëw ma wax li ci des Papa Ndiaye ma lay delloo antenne bi ba ci kanam wala ba suba gàmm jaa ngeen jëf merci beaucoup. attention Papa Ndiaye ci yoo ngi noonu jàkkaarloog yéen ngeen koy gis nii waaye Ndeye gay incha allah moom ma nga jubal direction de lijjanti ay. yëfam ah, di lijjanti ay këyitam yàlla yàlla noyal yëpp ci barke Seydina Muhammad amiin nga dugg fi ci bismillahi rahmaani rahim tàmbali ak alhamdulilahi rabbil alamin ndax lu ñëpp bokk lu ne ku ñëw nga ca waaw fii moom ku siis doo fi toog ndax àdduna yàlla mooy joxe dépense yi joxe doom yi mhm. joxe añ yi joxe oto yi joxe doom yi joxe soxna yi te du añ ci àdduna ku siis bokkoo ku siis sax amoo xam-xam ndax fii dara jeexu fi kër yaa ngi fi ne gaañ oto yaa ngi fi ne gaañ jën yaa ngi ne gaañ ndëjum yaa ngi toog te yaa ngi xaar foofu laay jaaree nag dugal sama ndaanaan kulli fadrin ah, ñu naan ko bàyyi borom tiwaawoon mu yeg si ana sama ndaanaan bi sama artiste bi damaa bëgg nga ne der jëm si ci man ma teeru la ah, ngay way lu la neex di ñëw alaaji man sorbay sama ndeysaan alaaji man sorbay alaaji si may ma caaka faati mbooneey ndeysaan ey ey papa jaay man sama yaay mooy sama xarit dëgg la waaye maay sëtu gitee ba moori. ndeysaan ma moori. taaw ma moore. ak Mamadou Badou Ndam. ay waay benn maam. jeeg baa ngi nii. Ah, waaw aminta. aminatu saadiya lan ko yaa nampal xayru lam yaayi. keroog bam koy namp am mbaam la waroon. mbaam moom moo gënoon sa mbaam ya. waaye ba mu sa tege moo gënoon sur samba am yaay Moustapha diggu yaaram. maa ngi lay wayantoo way way jafe sama xol lay jóge daanu sama ruugi papa jaay bëgg naa la lool. maa la raw saw joloore papa say joloore mi ngi fi ay jaaye man bëgg naa la. macha allah macha allah macha allah. ndaanaan feeñati na 2S maninam. Mhm. ndax nee nañ lañ kër gi nee nañ ñu kenn. képp ku doomu aadama ko sunu borom sàkk rek def na leen suñu bopp jàppee na ni ñu jàppee ñëpp ni ñu jàppee Youssou Ndour la jàppee ni jàppe jàppee Papa Thion la jàppee ni ñu jàppee Wally la jàppee ni ñu jàppee Sidi la jàppee ni ñu jàppee Papa Diouf lan la jàppee fii yëf yi ñëpp la wax naa ko léegi yéen ñëpp ci ngeen bokk ku dégg li nga way dégg ni ngi nuyoo xam ne li ngay def mën nga ko ndax baat baa ngi fi waa Baye waa Sénégal a ngi looy nuyoo Sénégal ah ana waa senegal maa ngi nuyoo waa Sénégal nuyu naa man fii laa juddoo fii laa màkki fii laa dëkk Serigne Babacar Si Maali Bakar rek dara aram loo Kumba Caam waay ku sopp Serigne yi sëriñ Cheikh Tidiane man de bëgg naa la jaay wayal ma ci sëñ Babacar sëñ Cissé mu sëñ Babacar bëgg ko lool gëm ko lool sëriñ Cissé yaa bëgg sëriñ Babacar si Malick ah, si fàggay de maayi eh. sëriñ Babacar alaaji maali gay baayam waaw sëriñ babacar koo koy borom ci waawan sëriñ babacar mooy borom jarde borom gaaya sëriñ babacar ñëwal mooy bàyyi sëriñ cheikh tidiane sëriñ babacar ñëwal mooy bàyyi sëriñ abdoy Serigne Babacar waaw waaw ay Serigne man sa si borom daara jee ay waay man da bëgg naa la ana Tijaani ñoom la képp ku taalibe Seex jógal yëngu waay ay waay Tiwaawan woote na ay dëkk Maam Khalifa woote na oto yaa ngi nii ku fa dugg dem Serigne Babacar si moom jàllee la may minti di mag naa bu yeggale damay jooy bul yeggale may Ah, xam nga ne dëgg du romi nopp waaye ku baax di kilifa mhm. buñ ko tuddee dinga nga am loo yëg ci sa yaram lu baax rek a baax te waax bu doon weesu mbaax kon nga jàll mbaax waaye sëriñ Babacar wàllu Kamal ku yàlla baaxal waa Tiwaawoon taalibe seex yi ñëpp bëgg nañ waaye Matar borom Tiwaawoon bëgg nga sama gaa yi sama soppe yi ne foofu di ma woo waaye sama caméraman dama lay décorer ndax tey danga maa bëggal ah, dama andil ndaanaan <laughs> tey dama lay ah, balaa ma laa tegal sa son bi dama lay bàyyi aminte rek. waaw tey aminte laa la dénk. man li may laaj du bari ndax damaa daanu. waaw <laughs> mais mais moom. Pape Daan daanu leer du la mën a laaj dara tey mën ngay jàkkaarloo ba mu bëri doole fii ci la télé autrement tubarkàlla ku ne xam na ni fii saa su ne surprise di day sàjj rek nekkal xale rek te bëgg te doon ndaw te neel bëgg naa rek. boo ñëwee Pape Alaaji Ndiaye da lay yaatal ba mu yaatu tubarkàlla ak yaay Mariam Ndiaye tubarkàlla ñu ngi lay nuyu. di la dalal naa la dalal ak jàmm. tubarkàlla maa ngi lay fay bu baax a baax a baax sama jigéen sama xarit mbokk yaay Papa Ndiaye. waaw waaw di la laaj nag la baat bi neex na trop li nga sàjj sëñ Babacar xol yëpp sedd na képp kuy taaliba Cheikh rek sa xol neex na fi nga toog di seetaan 2STV léegi ñu lay laaj sa jaar jaar fi nga jaar ci musique lan la. jaar nga ci orchestre wala da ngaa yor orchestre wala da ngaa bëgg a sàjji comprendre ma daal li nga sàjji dafa sedd xol. waa yaa ngi may posé lu ma sawar tontu. parce que bete géwal la. si ndey si baay. dëgg la waaw ñun si loolu la ñu. te Momori taamu Momori la tudd léegi. waaw waaw ba pare El Hadj Mansour Mbaye mooy sama maam El Hadj moo jur sama yaay El mën Mansour Mbaye El Hadj Malick El Hadj Malick Tassir Mbaye ma caaka Fatim Ngoone. boo woyul tooñ boo dul ndaanaan tooñ. loolu am. kii dalaa laaj lu am solo mu ne ba xam da ngay jaar ci orchestre wala Tiwaawan loo fa doon def. wala xëyoo rek waaye am na métier doon def xanaa. waa ndeysaan jaar naa si métier. Mhm. waaye nag maa ngi si biir kër géwél mi Papa Ndiaw. sa parcelle ngéwél gi sekk ma nekk sa biir mhm. papa jaw sama mag jël ma tette ma jàngal ma aar ba tey yàlla dogal a ah, ma ber sama groupe nga ber sa groupe di joué si mariage yi ngénte yeeg yëpp nit ñaa ngi may woo may joué macha sant yàlla ah, nit ñaa ngi woo nga joué ci mariage yi te def nga single léegi dinañ laal clip bi ñu wane ko àdduna gis ko. waa waaw ndeysaan def naa single. Mhm. ak sama mag Pakaay borom Pikine. waaw Pakaay ñàkk ki ñan lool. dëgg la Maguette Baye tamit ñëw jàpp. si borom parcelle. Mhm. macha allah. morceau bi génn na clip bi dina génn mois bi ñuy dugg incha allah. dëgg la pour fans yi. la. mais léegi. waaw li ma la fi ma bëgg a jëm ak yow mooy damaa bëgg nga joxe sa numéro. Mhm. ñu la war a jàppale jàppale la waaye tamit damaa bëgg nga woo waa ak autorité autorité Tiwaawan yi ñu ñëw jàppale la ndax ku jara jàppale nga ndax da ngaa bëgg dara toogoo rek na yàq ngeesar ah, <laughs> ñu doog a ci son bi joxal numéro bi waaw ndeysaan sama numéro nag waaw 77 841 mhm. waaw 851 800 joxaat ko joxewaat ko ko ci kaw 77 mhm. waaw 841 <laughs> booboy samari mara jaay. waaw waaw ku ma woo di ma jot njaay. man damaa bëgg ndaanaan. waaw waaw. damaa bëgg ndaanaan. heure boo ko tuqee day tàq. waaw ndax numéro sax bu koy joxee da koy way. da koy way waaye orchestre bi nga yor yow yaa ko moom quoi sa orchestre la. waa sama groupe la. Mhm. sama groupe la. may leader bi. may gërëm bu baax Xabaan Fall borom Pikine. macha allah parce que fu ma amee programme musiciens yëpp ñëw wuy sama. ñu joué def ba mu neex. ndeysaan daf may woo foo ne ñëw ñu répété studio Xaban Fall borom Pikine. dëgg la Xaban Fall borom Pikine mais yaa ngi yaa ngi génn dem ci raison yi di tëgg ay mariage waaw maa ngi ci boîte yi est-ce tëgg ci boîte yi tamit. waaw boîte yi ñu ngi waajal ravin bi. incha parce que damay def sama anniversaire sama premier sortie ravin. Mhm. di sa di def sargal banlieue bi nag. ndax du sama anniversaire banlieue bi ñoo xewle. ndax Baye Seck daa fu mu jaar ak banlieue bi. Mhm. donc di leen wax ni leen. di programme Baye Seck programme banlieue bi la. banlieue bi waa Tivaouane maa ngi woo waa Thiès dëkk yi waa Kaolack. Mm. Kaffrine Tamba waaw ñëpp waa Ndar ñëpp maa ngi leen di woo. dëgg mm-hmm. léegi daal su ma bëgg a jëm ak yow mooy na leer léegi nag damay wax happy birthday koddu koddu borom Belgique ah chérie dame Kodou borom Belgique chérie daam ma lay wax ni sama waa ji Mbaye Diop. may Diop mi nga xamante ni moom daa baax lool yiw doon nit ku baax ma koy tooñ di ko yëngal lu ne ma ko ko naan ko médecin saint laa lay may tey laa joxe laa la may yow sa ah, du ma may loolu daf waaye damay ñëw léegi bàyyi leen ak daam mu mosal leen lu bees li mu indi ngeen xam lan la ndax daam daa naan la kulli fadrin bu ñëwee nag ma tëj ak moom rési ngeen may ma son bi daam jege si nii nga play back sa son gars yi may leen ma ko waay ma doxal ko di leen bëggee di leen kontaane koddu doxalal après nag jéeg ñëw wax ma bëggee la may sonal bëggee la may joyloo bëggee la may doxloo bëggee yaa may doole bëggee la may sonal bëggee la may joyloo bëggee la may bëggee yaa may doole bëggee la may sonal mbëggeel la may doyloo mbëggeel la may tofloo mbëggeel yaa bari doole mbëggeel la may sonnal la may doyloo mbëggeel la la may sonnal yem na keneen ku dul man Bataf. ñëwal ñu tëj. ñëwoon ñu tëj waaye balaa maa jox Baye Seck aminte damaa bëgg nga taxaw foofu. waaw waaw joxe numéro bi joxe ki nga xamante ni sàjjal na la ba mu yëngu ba yëngu ba yëngu. maa la ko wax doon jéego borom dëkk bi mu yëngal moom tamit. jé jéeg li nga def tey saf na ma neex na ma. tey di nii rek laa def tubarkalla macha allah. ak limaat création tubarkàlla bëgg leen faa sàjj xale yi joxal xale yi mu mi ngi waaj ubbi boutique vendredi xale yi dëkk bi yëngu limaat création mi ngi nekk ci deux voies liberté six yi ku ci bëgg façon yëpp am na nag ak noo toll mu jot la tubarkàlla da ngay def 77 769 99 23 wala nga def 78 777 15 48 Papa Ndiaye ñu daal lay sàjjal nga daal di fëlaale tout est paré li may wax ñëw rek daal di paqueté li may wax moom di leen ko wax mooy gis ngeen bàyyi. Mhm. keneen ku dul bàyyi dama koy indi fii. la ndax ñun ñëpp benn lañ. Mhm. man ñëpp laa yemale. Mhm. ndax borom kër gee ko bëgg suñu yaay bëgg ko waaye ñi fi liggéey tamit am yërmande ci ñëpp. bàyyi kontaan naa. maa la gën a di bu clip bi pare indil ma ko ndax damaa bëgg nga ñëwaat. incha allah waaw tàggool ma tëj ñu dem. waa maa ngi gërëm waa Tiwaawan. fa ma juddoo màgge fa yaroo fa. Mhm. di gërëm tamit banlieue waa parcelle ga ma dëkk. Mhm. Pikine Géejawaay Yëmbal Caaroy ñëpp maa ngi leen di nuyu di bégg bu baax di gërëm sama ménagère Seydina ak soxnaam Assu maa ngi leen di. waaw Seydina bu baax bu baax. waaw mooy bàyyu mama ak Fatima maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñoom Omar Diop mhm. ah maa ngi nuyu tamit ñoom Balla Diaw Lamine Gueye mhm. borom parcelle mhm. borom eh, Tali Ndiaga Mbaye mënoo lim ñëpp da bàyyi waaw mun maa lim ñëpp waaw rek ñu la yàlla tax maa ngi leen di. waaw bégee. waaw di leen ziar. waaw di wax Sanex joyeux anniversaire. waaw ah. Céline Sadia Sadia nag yaay yow yaay leader. Ah, waaw yaag borom Pikine. maa la wax li Adja Lo. Adja Lo yeneen sponsor leader. taalibe Serigne Fall waaye sama yaay Marème Faye Sall. mu Alaaji Macky Sall mu baax mi yàlla na seen jàmm yàgg Sénégal. yàlla na jàmm yàgg ñëpp bégee di kontaane. Mhm. waaye nag may naa leen nag. Abdourass ñu xuri. ba demee kontaan nañ bye bye. bye bye.